ñu ngi leen di nuyu ci Walf TV ñu fas yéene doore xibaaru digg bëccëg geek njàng meek njàngale mi ba tey. jàngalekat yi seen xol giifagul gannaaw fitna ga woon foofee ca Ziguinchor ak doxum ñaxtu gañ fa doon amal am ci ay jàngalekat yoo xamante ne jotoon nañ caa jëlee gaañu gaañu yu metti eh, la fa xewoon tax nag waa G6 ne dañu clamé ci yoon eh, kilifa yi teewal nguurug Sénégal foofee ca Ziguinchor ak i tamit eh, takk der yafane keroog ca ba ñuy amal doxum ñaxtu dañ ciy teewlu Abdou Fati bokk ci waa G6 ay kàddoom ci micro Amady Khalid Diémé sa xayma camarades yi dem nañu mais man dama toog dem aussi yu xool su nemmeeku camarades yi blessé woon dem seen famille masawu leen mais nag li ñu gën a métti méttitul nañ ko mais duñ si méttitul rek yem ko il faut que ñu porter plainte gouver euh, préfet bi ak commissaire wu Ziguinchor pour euh, abus de pouvoir ak causer blessure volontaire lii dafa ñaaw te ñun ay waruñu ko seetaan ay doomu réew mi ni ñu xeex sunu droit sunu droit mooy droit marche dañu xeex ba am sunu droit boo xam ni ñëpp sont égaux devant les tribunaux dinañ yóbbu tribunal ñu xool nag li ñuy wax si tribunal bi dëgg la wala dëgg ndax tribunal moom moom boppam wala moomul boppam dinañ yóbbu ci tribunal ñu ngi jël sunu matuwaay yëpp di leen wax ni également incha allah ñun suba dinañu dellu Dakar suñu delloo lundi ñu nag camarades yëpp dañu dajaloo toog. Euh, def conférence de presse defaale évaluation bi déclenché septième plan d' bi. waaw ñu ngi siy jël matukaay yi parce que dañu am sunu ay conseils yu ñu laaj ba pare xam nañu yan juridiction lañu ñu dem et effectivement dinañ ko jël vraiment li fi am yëpp di masawu waa Ziguinchor di masawu église bi fexe nag ba dootul am si réew mi parce que lii dafa ñaaw. jël nañu ay image am nañu ay témoignages am nañu ay ordonnances te wax nañu ñu délivrer ñu certificat médical suñu bañee ñoo xam mais am nañu ay preuves yoo xam ne montré nañu am na violence am na fi montré nañu. Euh, préfet bi dafa wax waxeet yëpp montré nañ ko yëpp dajale nañ ko incha allah dañ leen ester devant les tribunaux xool ndax nguur gi xool ndax justice bi indépendante na wala indépendante ñii de ay jàngalekat euh, bootu ci G6 te fare ca diwaanu Thiès jot nañoo métitlu ak euh, naqarlu li fi jot a xew euh, keroog foofe ca Ziguinchor ci ñaxtu jàngalekat yi gis ne daal nguur gi wegul jàngalekat yi te parewul benn yoon ngir saafara jafe-jafe am ci njàng meek jàngale mi Malick Fall ma yor seen kaddu foofe ca Thiès ci micro Ibrahima Ndiaye. réew mu Alaaji Malick nekk sëñ Touba nekk fi maam Limaamu Laay ak ñu deme ni ki noonu ñooñu nga xam ne ñëpp seen métier moo doon jàngale nga ñu leen remplacer ci xam-xam boobu te xam ne réew kenn du ko tabax lu dul ci xam-xam nga leen di dóor ay grenade lacrymogène ak yu demee ni ki noonu kooku boo nee boo nee fulaal nga jàngalekat danga nga da danga da ngay nax sa bopp ñoo ngi koy ñaawlu nag fu ñaawlu yem te loolu deful lu dul nag yokk ci xar mi karaw ndax jàngalekat yi nga xamante ni sax daawuñu génn akus néew fi mu nekk nii dañoo mer bu fut ndax noonu ñu def ca Casamance. base bi daje nañu base bi laata sax li xew Casamance di xew gaz base bi daje nañu ne ñoom kontaanuñu liñ doon xaar dégguñu ko kon nag dañuy continuer grève bi far nag ci diggante boobu moom mu waroon a seral war a jéem a yaxanal mu yokkaat ca xar ma karaw kon kay wax dëgg yàlla segam ña ca wala ndaw ñoo daanu ci teen waxantuma laa ñi ci bind bi xam nga xalif général des Tidiane wax dëgg yàlla rôle la def moom rôle am mooy xool fu tàkk-tàkk am mu fay ko waaye ñoom it dañoo amoon baatu jaambur la ñu yor la ñu wax loolu rek la ñu war a wax ñëw nañu nag dinañu delluwaat ca moom dinañ delluwaat ci xalif général de Tidiane wax ko dimanche incha allah wax ko li nga xamante ni moom la jàngalekat yi xalaat état bi dafa njëkkantu rek wax ñu waxu eh, eh, ndàmpaayu dëkkuwaay bi mais li nu gën a soxlaal li nu gën a soxal jàngalekat yi mooy seen yaa ngi may dégg seen alignement yi loolu moo ñu gën a soxal ndax jàngalekat bu fekkonte ni bu admis sa examen professionnel yaa may dégg ñu aligné la ci sa grade ndàmpaayu dëkkuwaay bi kon bu boobaa luñ ñu ca jox ñu jël ko état bi daal bu créer condition yi mooy lenteur yooyu ñuy wax lenteur administrative mooy avancement yeeg yooyu lépp mu defar ko ba mu baax ndàmpaayu dëkkuwaay yi li ñu ciy xaar ndax dañ cee bëgg nag yemale ndàmpaayu dëkkuwaay yemale rek lañ ci wax ñun waxuñu woon sax du woon sax suñu objectif mais yemale lañ ci wax su ko yemalee yaa ngi may dégg yóbbu ñu ci sunuy carrière ni ñu mun ci war a yóbboo ci sunuy grade jàmm ne ñooy li ci des nag yàlla may nañu ko yàlla jox nañu kattan gi yàlla jox nañu xel mi yaa dégg ñu jàngale ji xale yi njàng meeg eh, njàngale mi coow tàbbi na ci eh, wàllu paj mi kuréelu syndicat gu ñu duppee ànd gësëm eh, fas yéene soobuwaat ci grève bu ñaxtu njeextalu weeru avril gi ñu ne gannaaw ba ñu gisee ne daal nguur gi jubloogul ci saafara seen jafe-jafe ci tournée gañ doon amal foofee ca Mbaan ca diwaanu Saint-Louis dañ ciy teewlu Mballo ja Thiam mi jiite kuréel gi ni mel ànd gësëm ay kàddoom ci micro Gabriel Barbier. wante yow da def lu nga xam ni ñun daf ñoo jaaxal parce que da nga commencé négociation nga benn catégorie ci ñun ci ñun jox leen indemnité bu bees ba pare yokkaleen leen euh, atu à la traité yi jëlee ko juróom-benn fukki at ba juróom bu ñu fekk juróom-benn fukki at ak juróom te accord boobu ñun amoon nañ ko ak gouvernement bi en mun 2014 mënuñu comprendre pourquoi nga d' ak ñun defaloo ñu ko nga di ko defal leneen nga créé leen indemnité bu bees te yaa ni woon doo wax ci régime indemnitaire bi. tant que parewul étude bi étude bi pare na bu yàgg bañu ñu partagé ko dara ñëwul donc dafa mel ni dañoo tànn ñi defar seen affaire daal di bàyyi ñeneen ñi loolu nag nanguwuñ ko moo waral nag xeex bi di war a continuer parce que préavis de grève bi dañu woon ñu deux mille 2014 yi mooy ponk bu njëkk bi beneen ponk bu bu mujj bi mooy ubbi ay négociation yu bees yu sérieuses si régime indemnitaire bi ah moom nag nee na moom euh, mënuñ ci wax ci boobu boobule waaye mi ngi wax nañ ko danañ ko waxtaanee ci yeneen jotaay loolu moo waral nag ñu war a continuer suñu xeex bi ah ni ñuy continuer xeex bi nag yomb na li ci des nag mooy alxames la ñu bëggoon dem grève a déggal talaata wante comme que laayeen yi euh, suñu mbokk laayeen yooyu dañuy célébrer appelu limaamu mardi a ah, dàq nañ ko ba àllarba ba ci topp euh, fukki fan ak juróom-ñett dañ def urgence ak service minimum. li ci topp nag mooy beneen grève bu ñu dëgmal talaata bi ci toppaat àllarba ñaar fukk fan ak ñeent ak ñaar fukk fan ak ci weeru avril buñ ko defee tamit te bi sottalul li ñu wax wala maanaam woowuñu ci ay négociations yu sérieuses dinañu banque xabaar yi maanaam danañ ko liggéey génn xabaar yi ba noppi denc ko euh, balaa ñu àgg foofa gouvernement war na mën a toog daal di tëddee njaaxaanaay wooñu li nga xam ni moo ñu war suñu diggante moom mu def ko parce que ministère de la santé la ñu nekk nekkuñu ministère de la médecine dañoo nekk ministère de la santé et de l' sociale donc moo tax ñu war a xoolaat régime indemnitaire bi pour que ñëpp yem gouvernement bi te tëddee njaaxanaay ñu di ay menuisier ci euh, ca diwaanu euh, Ziguinchor jot nañu amal euh, doxum ñaxtoog métitlu jafe-jafe yi nga xamante moom la dund gannaaw bi nguur gi jëlee dogal dakkal gorum garab ya foofe ca àllu boofa bayoot ak fitna gafa amoon weer yàlla ñu weesu tax na yooyu les menuisier ña ngay yuuxu wàllu ci seen wàllub liggéey ak koom-koom gu deltu ginnaaw dañ ci teewlu Amady Khalid Jemme su amee ñu nga xam ne du ñu mus a fàtte li amoon si àllum Boffa Bayotte si janvier bi weesu artisan Ziguinchor yi bokk nañu si ñu ngi subir ay conséquences yu métti si li nga xam ne loolu mooy interdiction dagg bant yi euh, li nga xam ne moom président Macky Sall moom la jëloon gannaaw bi ñaaw ñaawteef boobu amoon foofu si boo fa Bayotte. dem nañu ba en certain moment mais nit ki boo ko teree teree teree teree euh, teree dara mais nga proposé ko dara mais ñun ñu ngi nii pendant ñu ngi dugg ci suñu cinquième mois bi waxuñu dara defuñu dara te xamuñu le euh, sanction bi kan lay kañ lay jógee kan lay jóg léegi ñu nekk ay pères de famille quatre-vingt-dix pour cent de la population est en de souffrir ñu ngi ñu ñu ngi ci métit ngir yàlla yonent ba état bi na gës jéem a gëstu ñu nekk population euh, euh, Ziguinchor nañu ñëw ñu toog ñu waxtaan ñu toogee ñu waxtaan on va trouver une solution mais teg tekkaaral bii teg teg kaaral bi moo warut soo amee ay njaboot nag nga ilif leen dafa am à un certain moment soo ko nee bay lii da nga ko fi nga war a jaar wala fi nga a def. atelier yi daanaka fonctionné wutuñu ñu ko bëggee ndaxte amatuñu ay banques yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee conséquence bi mooy menuisier yi ñu ngi si situation bu métier métier moo tax ñuy ñax autorités yi pour ñu revoir li nga xam ne loolu mooy décision boobu kii di Sadibou Bodian moom mooy président regroupement menuisier yi nekk si région bu Ziguinchor. boo seetee dagg nañu àll bi yëpp. ba ñun waa Ziguinchor yi sax amatuñu bant foo xam ne ki dañu koy liggéey tey bu ñu jëndee quittance dañuy am problème na état bi jënd si mu ñëw toog ak ñun ñu seet une solution boo xam ne ki dina arrangé ñëpp ñun loolu la ñu soxla. mesure bi du ñoom rek la laal laal na tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu si wàllum dépôt si différents dépôts yi nekk fii si Ziguinchor. man may Alaaji Dieng. suñu euh, suñ jafe bari na ndax fi mu toll nii ñu ngi commande yoo xamante ni daan 4 mois ci ginnaaw. lañ ko amoon mais ba léegi mënuñ koo euh, joxe ndax série yi tëj nañ euh, ministres yi seen bopp sax seen problème boobu lay am. conséquence bi ressentir tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu si wàllum këriñ euh, këriñ bi nga xam ne euh, saako bi prion bi dafa gën a jóg fi si Ziguinchor Amady Khalilou Diémé moo doon jox ko ak yéen pour la radio télévision Walfadjri ñu ngi koy jaajëfal Amady Khalil Diémé ba tey pënd mi wureegul ci coowal parrainage euh, parti bi di APS di parti engagement pour le Sénégal progrès bokk na ci tamit ne ànduñu ci doxalin gi ni ndax parrainage àndut ak démocratie njiital parti ba di Issa Sadio Kanouté jàpp ne nañ ci teel a wax laata muy jul riccu ci ëllëg ci réewum Sénégal Issa Sadio Kanouté ay kàddoom ci micro jëmm mbay mbokk Sénégal ñi ci réew mi ak ñi ci biti wax nag jot na jot na balaa moo wees jot na ci suñu koom-koomu réew jot na ci suñu doxalinu réew jot na ci suñu démocratie réew ndax ñàkk wax ci li ñuy dund tey mën naa indi rëccu njiitu réew mi nekk fi tey sénégalais yi dañ ko yërëmoon ñu nawoon ko ci dalam ak teem bañ ku ko toroxal moo tax ñu fal wante nag li ñu jaaxal mooy charte réew moomu mi ngeen mi mu nee ne moo ko tënk moo tënk aussi may yeneen parti ba duñ jaar ci parrainage pour dem ci jongante présidentielle leneen li ci topp mooy tey tey tey ñu gis ne ne dañuy jaay doole di wane na ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ci nguur gi mais tey man mi nekk nii de ma jiite parti bu ñuy wax EPS ñu koy tuddee engagement pour le progrès du Sénégal fas yéene nañ taxaw tem ak bépp sénégalais bu bañ nooteel ñun nag. du ñu dara du dul ñu fi ne pour sàmm ndonay askan bi sàmm ndonay askan askan bi ba nga xam ne ne xiif gi wàññeeku ci réew mi ñàkk gi te surtout yoon amaat ci réew mi parce que pour ñun réew mi nu muy doxee franchement yoon amu fi lu aju ci parrainage googe askan wi mun ci am gindeeku ca la ko sookeek la ko wundu ak la ko tax a jóg uh, doon lu yitteel mouvement Macky moo ñu yor moo ñu ñor uh, fexe nañu ba feggoog ay kuréel yeneen ak professeur uh, Mbaye Thiam ngir mun cee waxtaan ak wàllum parrainage dañ ci teewlu Mamadou Dieye ma nga woon ci googu lépp ndaje. ngir gën a xamle lu ëmb projet bu ñeel mbirum parenage buy lëmbe jamono ji réewu Sénégal tax na ci am ndaje mouvement bi ñu duppee Macky moo ñu ñor xalaatu professeur bii di mbay Thiam. sama wóllëre Cheikh Mbacke Sakho moo ko woote. faruñu fii faruñu faa mais gëm naa ne man bu ñu demee élection présidentielle te d'accorduñu ñoom ci nan la ñuy fexe ba ñi bëgg a nekk candidat ñëpp ñu filtré leen pour xam ñan ñooy ko dañ ciy waxtaan ba juboo ñoom lay def buñ ko defut dina teg askan wi coono boo xam ne li ñu dëgmal jëriñ. ndaje bile ku yor kàddu gouvernement bu Sénégal di ko rafetlu bu baax ak sax itam di xamle ngëm-ngëm bu njiitu réew mi Macky Sall am ci projet bile. ñi ne bëgguñu mu am nañu wax nan lañu ñu war a proposer pour ñu yegg ci régulation boobu dafa mel ni dañu ne dafa am ndaw su rafet yu nekk ci réew mi ñoom ñu ne dañu ko bëgg soxna ñu ne indi leen seen i bàjjen ak seen i mbokk ñu ne du indi ba pare génn naan dem naa ñaani ñu bañ maa may waxuñu leen loolu. foog naa ni euh, ndeyale am na bàyyile am na te bu fekkente ni kóolute moo tax ñuy dénk nit fa nga bokk say mbokk ak ña ànd ak yow mën nañu yokk li tax ñu wóolu la loolu rek mooy exercice bi waaye njëriñ bi mooy réguler suñu démocratie. mouvement bu taxawaloon panel bii di moo moonu ñor di xamle ne di leen wàcc ci mbedd bi ngir gën a saafoontoog askan bi ci dëgg-dëgg lu ëmb projet bii di parrainage. jox nañu xam-xam bu doy ci parrainage danañ dem ci gox yi def ay réunion ak ay conférence danañ ko yëgal kilifa diine yi parce que tam Sénégal bu kilifa diine waxee ñu jabolise ko lu tax muy wax ci élection warte politique te si ñoom yaanaamaar amee droit ne wàcc leen ci mbedd mi ay kilifa diine yi am nañu droit ne bu leen wàcc. ñoom sax ñuy xam ne ne dinañ amal yeneen projet ngir ñu daal di tabb ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi Macky Sall. premier tour ci élection présidentielle yu atum 2019 yu nu dëtmal. Euh, jaajëfal euh, mamadu Dieye ba tey ci wàllu xibaar jog jot na di ab kuréel gu bees goo xamante ne ay ndaw jëppal ñoo ko taxawal ngir suqali seen gox jot nañ ci amal waxtaan gu yaatu ni ki démb Issa ma nga fa woon jóg jot na di ak kuréel gu juddoo ci jëppal derkle ay ndaw daal di bootu ci ginnaaw Amadou fa fas yéenee jóg ngir suqali seen ab dëkk ñu jàpp ne sax derkle dañ koy yàgg bàyyi ak boppam. li ki tax ñun waa commune bi dañoo def constat gis ne commune bi léegi dafa nekk la boo xam ne dafa waroon jël paie mais di mel ni jël ndaare li ko waral mooy manque d' assistance état bi parce que état bi. état bi toppatoo wuñu ñun nag duñ ne fi di xeex di bëre wala di jël si ay brassard rouge. ginnaaw bu ñu taxawalee grek kuréel ndawi gox bi ñoom ñëpp ñu fas yéenee jóg ngir sóob seen loxo ci nekkinu dëkk bi. insécurité bi am na fi manque d'emploi am na fi jigéen ñi amuñu dara fu ñu jàpp wala ñu mën a taxaw il faut ñu fexe ñun créer créer dara loo xam ne nañ mën a aider les femmes à se refinancer essayer d'aider les jeunes tamit à avoir de l'emploi demal seen bopp. meeru commune bi Cheikh Gueye ak ki fi teewal Ababacar Sadikh Bèye di njiital port autonome bu Ndakaaru ñëwoon ngir sóob seen loxo ci biir kuréel gi. lu lancement mouvement bi jóg jot na l'heure est au travail l'heure est à l'action l'heure est au bon travail l'heure n'est pas aux invectives l'heure n'est pas aux calomnies l'heure n'est pas vraiment à la destruction l'heure est à la construction te loolu tax ma yaakaar ni am nañu yaakaar ci mouvement bi am nañu yaakaar aussi ci ëllëgu commune bi parce que bu ñëpp jàppee wat gaal ak yóbbu. ñu ne bu ngeen demee ba ne jug jot na mooy que ne yéen da ngeen bëgg a approprier wu seen intéret commune pour que seen commune mun a dem ci kanam et en plus da ngeen yokk si lan nañu joxante loxo joxante loxo mooy que ne du affaire kii fii la far kii fële la far. waxtaan ak askan wi gën leen a ñaax bu baax di taxawal ay bis yoo xam ne dañ ciy maye deret ñi nga xam ne ñoo ko soxla ak yeneen i mëbët jog jot na nekk ak kuréel gu laalewu dara ci wàllum politique xam le ne taxaw nañ temm ngir suqali seen ab gox lu aju ci wàllu koom-koom fondation Baba Girassi foofee ca diwaanu Kédougou jot naa feggoog lu tollook euh, ñaar fukki regroupement ak euh, benn euh, ngir dooleel jigéen ña ci wàllu koom-koom fukki million ak juróom la leen jagleel ci ndimbalu député Moustapha Girassi foofee ca Kédougou Solibou Ramadabo diggee bor la l'honorable député Moustapha Guirassy lu mu diggoon askan Kédougou maanaam bés bu muy jàlle député lépp loo xamante ne ay indemnité la dina ko reversé ci compte fondation ma Maba Guirassy mii di bàyyam tey nag mun nañu wax de daal boobu kaddu antu na ci jotaay bi nag lu tolloog fukk ak juróom GIE ak it juróom benn nit jot nañu seen enveloppe damay euh, d'abord sant suñu boroom ci euh, lim ñu dimbali ñu fekkee ko ni ñu déggee ni noonu la demee dalal na personnellement suma xel gis naa ni couche yëpp am nañu gis naa ni commune rurale yëpp am nañu gis naa ni aussi structure boo xam ni moom la ñu dénk gestion euh, fonds yi euh, gis nañ ni waa Kédougou yëpp gëm nañ ko xam nañ ko xam nañ ni depuis plus de vingt ans ñu ngi liggéey ci secteur bi maanaam accompagner les initiatives locales de femmes et de jeunes euh, lu am solo nag une première tranche ñu am ci vingt et un euh, groupement yoo xam ni am nañu seen financement am na solo euh, di fàttali ni suma salaire moom mooy alimenté dans un premier temps fondation googu mais salaire tuuti na pour euh, mën a porter tous les besoins ak ambition fondation mu am yeneen yoo xam ni tamit bokk na ci te nar na ci bokk ay donateurs au plan national international yoo xam ne nañ dugal seen loxo ci fondation bi. soxna si bi nag te muy yëngu ci wàllu élevage commerce orpaillage te mu bokk si bénéficiaires yi nee na daal bëgg na ndaxte fondation bi ñëw na waxtaan. kontaan naa tey lool lool. bi ma béyee benn yoon ma gis ma xam ne béy bi dafa baax ci laa jàppe man courage ma nekk ci béy bi ak élevage bi wax kii waxtaan ak sama jigéen saa su ne du ñu nangu kon ko xamuñu intérêt kii bi intérêt bi mais maa ngi topp ba léegi. ñu gën a nekk ci liggéey bi xam nañu léegi xëy na suñ coono bi day génn léegi suñ quartier bu ñu sukkandikoo ci Moustapha Guirassy mi jiite bi fondation nee na daal tout sauf politique d'ailleurs lu ko firindel moo di ne c'est pas politique rigueur boo xam ni ñu ngi koy entouré ci gestion bi pour mu bañ a tombé ci espace wala ci loxo koo xam ni suma xarit nga ci wàllu politique wala koo xam ne da nga bëgg a teg pression politique ñi ñu ko dénk duñ ko nangu parce que kenn du yàq seen liggéey ñi ñu copté aussi pour ñu bokk ci fekkee ko mu nekk ay sage mu nekk ay acteurs de développement defe naa dara du leen jaral kenn ñëw yàqal leen ko pour des questions partisanes. ci xayma ñaari junni GIE ak it junni ak ñaari téeméer individu ñoo nar a bénéficier bii projet si ay e ati yu dëmbal Kédougou Solib Ramadabo Ablaye Chimère Fall pour la radio télévision. Walfadjri ñu ngi koy jaajëfal Soulibou Ramadabo ca Kédougou dañu dem ca Touba mi daloo démb ndajeb Kazu Rajab ci teewaayu kilifa yu bëri Serigne Abo Falilou mbake jot naa soññaat way politique yi ngir ñu moytandiku xastek fitna waaye terewul sàkku na ci nguur gi mu gën a taxawu njàngum alxuraan foofe ca Touba dañ ci teewlu Mamadou Matar Sarr Sénégal dañoo a gën a fonk njàngum alxuraan fullaal ko faydaal ko ndax kat seetlu nañu ne mag ñu baax ñi nekk ci réew mi ñoom ñépp ci daara lañu génnee jaroon na kilifa yi ngànk réew mi gën a fulaal daara jox ko cër bi mu yellool comme ni mu koy defee ci njàngum nasaraan mi di gis-gisu sëriñ Abo Mbàkke Fàllilu kàddu yu mel mu ngi ko yëkkati jaare ko ci El Hadji Ndiaye Cheikh Ndindi jamono yi ñuy amal cérémonie officielle lu màggalu Kazu Rajab sëriñ bi dolli ci ne ñu gën a dellu ci daara yi ndax li ni mel dong moo mën a jagal réew mi sëriñ Abo Mbacke fàllilu wax na it ci gereew bi jàngalekat yi dëkkee nee na kat jot na nguuru Sénégal xoolaat doxalinam toog ak ñii di ñaxtu ut saafara ci mbir mi su ko defee tuut tànk yi mën cee jariñu ndax bu dul loolu kat ñoom dong ñoo ci nara loru ni mu ñaaxee kilifa yi ngànk nguurug Sénégal ci njàng meeg njàngale mi noonu it la ko defee ci wàllum paj mi ndax nee na kat ñaxtu gi bari na te jot na ñu toog ci benn taabal ngir mën a ut solution su ko defee ñi feebar mën a faju ci jàmm sëriñ Abo Fàllilu Mbàkke wax na it ci tuut tànk yi ñu seetlu ne jamono yi dañ leen di rey te teguñu ko ci lenn lu dul xërëm mu gis ne ñiy def li ni mel war nañ xoolaat seen doxalin ndax bés dina ñëw ñu jàkkaarloog seen boroom te daray àdduna jarut ngay faat bakkanu moomin bi muy wax ci wàllum politique ak élection présidentielle yi ñuy dëgmal sëriñ Abo Mbàkke Fàllilu nee na sun boroom tànn na ki war a nekk président bu yàgg kon nag waxante lu ñaaw ak saagante ak jëf bon jaru ko fi looloo tax sax mu ne way politique yi nañu gën a xoolaat seen doxalin. sëñ bi nee na ngeen rafetal wutin bi bàyyi leen xastante bi seen biir bàyyi leen yàqante der bi seen biir ndax ay référence ngeen ku nekk ci yéen mbooloo la leen déglu kon lu ngeen di wax na ngeen koy seet ba mu nekk dëgg ngeen di ko rafetal lu ngeen man di wut la yàlla tudd ci yéen kenn mënut tee ngeen jot ci bu dee mépp ne woon du jot da ngeen jot waaye ku ci doon pexe réew mépp ànd ak yow coow jeex yàlla dogalul nga am ci nguur dara doo am ci nguur dara kon jëwriñ ji fi teewaloon nguurug Sénégal di ministre des sports Matar Ba nee na kàdduy sëriñ bi daañu ko jëfee sàkku na ñaan ci xalifa sëriñ Fallou ndax jàmm sax dàkk ci Sénégal sëriñ Cheikh Rafahiyu mi yëkkati kàddu porte parole bi sëriñ Abdou Fatah Mbacké ñaax président de la république Macky Sall mu gën a gestu néew gi doole yi ndax Cheikh Mouhamadou Fadal di borom màggalu kasu rajab dundam gépp daf koo jagleloon ñi seen loxo jotul seen digg ginnaaw ba tax mu ne nguuru senegal dafa war di jëfee li ni mel saa su ne. dana ñaanal réew mi jàmm sax fi ak ku yokkute waaye moom itam dana yónni ci moom nga ñaanal ko mu gën a yërëm way néew doole yi ndax li tax mu di ko wax mooy suñ fallukat naka jëkk way néew doole yi la daa àndal moo doonoon seen wéttal kattan gi ko suñu borom jox jaarale ko ci loxoy nit ñi yoxoy nit ñi na ci jëfandikoo yërmande laata kàddu yi nag porte parole xalif général de mourides sëriñ Bass Abdou Khadre Mbacké ñaax na taalibe yi ñu gën a sóobu bu baax ci mbay ak liggéey ndax taalibe murit kat xamewuñ ko lenn lu dul liggéey ak jaamu yàlla Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Mamadou Matar Sarr lu ci wàllu tàggat yaram euh, bokk na ci fédération sénégalaise bu football jot na amal assemblée générale doon addu euh, ci wàccaayu mondial gi ñu jëm ak la mu mun a jur ci wàllu pour yokkute sport fii ci réewum Sénégal maître Augustin Senghor njiital fédération sénégalaise bu football ay kàddoom ci micro Nafi Amar am solo ci assemblée générale bi ñaari mbir benn bi mooy dañu génn si assemblée euh, ci saison boo xam ne amoon na ay jafe-jafe lorop ci niveau national kenn du fàtte li fi xew parce que bi gën a euh, yées rek laay wax muy affaire US Wakaam ak kii mu am ay nit yoo xam ne seen bakkan dafa rot mu am ay deux cent personnes yu gaañu loolu kenn mus ko gis si football bi bu dul loolu tam amoon na yeneen jafe-jafe problème yi euh, maanaam Géejawaay problème mu Saint-Louis bi nga xam ne ba léegi mënuñu taxawal seen comité exécutif ak peut-être sax ñeneen ligue yoo xam ne tey ci affaire maanaam ay féete ci affaire élection yi dem nañu ba xam ne dañu jàpp ne xëj na dañ leen boolewul ci mbir yi te man sama wàlla en tant que président fédération moo doon profité si occasion bi nga xam ne délégué club yëg fii délégué yëg fii lancé maanaam euh, jébbal leen benn kaddu bu dul rek jéggalu waa yi ci turu askanu football bi yëpp jéggal foofu bu jéggal mën a yem pour naan leen ñu nangul ko jàmm dellu si football bi li nga xam ne euh, moom la ñu ŋànk nit yi dënk ko ñu mun ci jubluwaat bañ a fàtte ñi nga xam ne génn nañu àddina éviter tam loolu amati mais tamit beneen mbir bi nga xam ne moo am solo ci euh, AG bi mooy ne dañ nekk si yoon yi coupe du monde coupe du monde boo fay dem boo amul ndëgër laay boo amul préparation bu wàcc amul sa askan nekk sa ginnaaw doo gañe kenn doo fa def dara donc euh, te pour ñun lu bëgg a wax sénégalais yi wala autorités yi wala sax sponsor nañ ñu jàppale nañu wane xar kanam yi nit ñoo xam ne dañoo bennoo dañoo nekk benn bawoo ci maître Augustin sengor euh, doon dikkat euh, ci jàmmoo gamu wooteek euh, benno fexe daal ba mun a yokk footballu Sénégal rawatina jafe-jafe yi ligue di jànkonteel ak i tamit yenn club yeeg wàccaay mondial googule dañ ci dikkat ci ay kàddoom na mu gën a yaatoo ak Cheikh Tidiane Gomis ci xibaar yi ñeel tàggat yaram ci noonu yegg si nañ ci xibaar yi ñeel bitim réew la ca gën a fës bokk na ci la xew ca Tumbuktu dañ ci dalal kii di Mamou Diaby Gassama dalwaay MINUSMA ca Tombouctou moom la terroriste yi jotoonu cong ñi ki démb ci ngoon foofee ca bët gànnaaru réewu Mali ni ki tey suba jot nañu lim ne lu tolloog ñetti doomu aadama ñoo ci jotoon ñakk seeni bakkan benn bi ci soldaay bootaay xeeti la bokkoon ñaari ay terroriste lañ woon ni ki noonu lu ëpp ñaar fukk doomu aadama ñoo ci jotoon am ay gaañu gaañu ca Égypte fukk ak ñeent extrémiste musulman juróom officier ak solda ñoo ñàkk seeni bakkan ci benn cong ba nga xam ne moom la ñu jëmale woon ca daluwaayu militaire bi nekk ci xolu gox biñ duppee Sinaay niki démb cong boobee mi ngi xewoon ci jamono ba nga xam ne ñi ngi yeesalaat état d'urgence ngir ñu amal ko ci diiru ñetti weer ca région boobu di diwaan ba nga xam ne deret yu bëri ñoo fa tuuru woon li ñu mel boobak léegi mbat na juróom at te leen waralu ko lu dul cong yi nga xam ne moom la kuréel bi di état islamique di amal ñaan saa su ne ca Sinaay tàmbali nañ fa sax ab opération militaire niki juróom-ñeenti fan ci weeru février 2018 fanweer ak ñeent réew yi bokkoon ci juróom-ñetteel daje bu màgg ba ñu amaloon doomu Amérique jot nañu xaatim déggoo ci lu tollook juróom fukk ak juróom-ñaar poñ ngir xeex li di guerre loolu sax moo nekkoon waxtaan bu fa gënoon fësoon ci boobu li daje waaye tamit waxtaan nañu ci li xew ca Syrie ak it affaire vénézuélien yi li nga xam ne indi daan yi ñu war a teg ci ndodu ñu rotoon bakkanu ñetti taskatu xabaar te ñu doon liggéey équatorien el commerciaux réew féete ca Amérique nee nañu ni ñoom pare na nañu ngir aar taskatu xabaar yi rawatina ña nga xam ne dañuy gëstu ci wàllum guerre lu nuyoo tàggoo tàggatoo jot na ci xibaaru digg bëccëg gi ci Walfadjri TV jaajëfal euh, Cheikh Tidiane Diop mi ne woon ci machine bi El Hadji Ousmane Sène ne woon ci réalisation xibaar yi di leen jaajëfal ci ànd beeg Walfadjri ñu yendook jàmm ak euh, programme leeru jamono yal na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew